Bombardier mu ngi bëgg a dugg si Bombardier mu ngi waaj a dugg si waa ndeysaan xoolal réalisateur ndeysaan oho oh, Bombardier ngi noonu di a dugg si waaw ngi waaj a dugg am na butéel bu ñu koy sotti waa ndeysaan euh, sel travail qui paye xoolal xoolal réalisateur bi li mu def nga xam ne télévision nationale tabarkàlla kenn du ko won na ma Bombardier àdduna bépp ci ne mu ngi dugg stade Léopold Sédar Senghor waaye mu ne ma dama lay won aussi diggante yaawu jaal ak mbay ngi mel ni bëgguñ kenn ñàkk la dañ bëgg lépp feeñ rek dëgg xam naa ne combat bu neex lay doon